kooru ren gii dañ gis mag ah. mu ci saal koor kee métti suñ daal waaye dugal dugal sa leneen waaye ah jëmm ak ni nga tëddee nii gis nga li la daal moo ma daal koor gi jàpp na waaye man mi la gën a jàpp. am na fu ma la de. man la yaa ngi woo man la sàmm mi nga daan yeewoo maa ngi nii soppeeku xale du fi am da gis juróomi mbéy sàmm wala gis fukk nii sama jàpp na la moom waaye nga góorgóorlu rek war ñoom ñëpp la jàpp. Eh, sa sa sa sa dara war a eh, jonkan gi doo ko puusale bi mag buur la mag am na at yoo xam boo ci ma moom maanaam moom limité koor dañ la ko war a defal ci ci boppam xam nga yow ni nga toll nii maanaam yow mën ngaa teel ñaari koor di ko woor waaye man xol ma xam nga dana ñëw ndogu ji sama kër gi ndax tey faatu yenu fi góor yenu fi yow nag nga jëm koo xul na ko seeree rek maa ngi sa yoon nag damay damay ndogu ji de. kër gi kenn yenu fi cin tax bii amul bokk na jënd tuut loolu dog maa ngi sa yoon na dem. Eh, eh, Samba Samba man man ma def nan. Ndiaye Samba. Samba. Yes. kuat, dia semua. Tranquil pas semua jadi pas. Samba, samba, samba. Buma, buma, tiga. Ya, buat. Yo, tiga pandan. Ah. Kamu semua kiri lagi. Mau ada macam lagi. moom mën a général MSD ñoom xanaa man ma woon ni da laa rek laa waaw kii bi jël téléphone am waaw waaw waaw waaw <laughs> nit laa <laughs> nit laa <laughs> dégg nga ko man maa ngi maa ngi Dakar laa wooree ay Samba Samba bi waaye dégg nga maam jox naam ko daa salte mënuñoo toog seen ndam li dégg nga maam ñande xel yaag xayte xale yi xale yi bu ñu jot xayta ma dégg nga la comme na ma ne daanam ma nagoon waaw waaw bokkuma loolu de waaw non ah, oh, avevo mai saputo, non, non, non mi... Allora, ma... ma... Ma se danno lo che... Si vede da parà, si vede, si vede, si vede, vede da parà, si vede. Buruzzo, come carozza! Buruzzo, yalla, yalla! neex laay def man tey du ma jaam du ma du ma neex lu bon laay def tey jii yu tëj leen lu ne